soxna Sukayna Mbàkke soxna Sukayna Mbàkke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1932 ci dëkk bii nag di Ndar ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1932 muy doomu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke ak soxna Indu Mbàkke moom soxna Sukayna Mbàkke nag bi mu jamono nag ci atum 1932 nag ci dëkk boobu nag di Ndar Géej di doomu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke ak soxna Indu Mbàkke am na nag ñu mu bokkal soxna Indu Mbàkke nag ak Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke ñu mën cee ràññee nag Sëriñ Sidi Moxtaar Maxtaar Mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ Sidi Ndar ibnu soxna Indu Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Amin Baara Mbàkke sëriñ Amar Fall Mbàkke ibnu soxna Indu Mbàkke ibnu sëriñ Mouhamadul Amin Baara Mbàkke ak moom nag soxna Sukayna Mbàkke bintu soxna Indu Amin Baara Mbàkke ñaar nag la bokkal waajur wu góor nag ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñett am na ñeneen nag ñu mu bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor ginnaaw nag bu fi Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke nag muy waajuram bàyyi ko ci 36 heures ci lañ jëlee nag waajuróom nag soxna Indu Mbàkke jébbal ko nag ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Sall Lam Tooro mook sëriñ Ahmadou Sall Lam Tooro nag benn bant lañ am muy sëriñ Amsatu Sall ginnaaw ba soxna Indu nag jógee ci loxoy sëriñ Ahmadou Sall nag Lam Tooro ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ Màggat Jóob Imnu mook sëriñ Màggat Jóob Imnu itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Mari Parsin Jóob ak sëriñ Xalifa Ababacar Jóob muy ñett itam nag ñu mu bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor ngir xamale leen nag suñu waajuru góor nag ñoom ñooy ñan sëriñ Amsata Sall doomu sëriñ Ahmadou Sall Lamtoora la sëriñ Amsatu Sall mi nag nekkoon na fi gouverneur bu Thiès nekkoon na fi itam nag gouverneur bu Ndakaaru doomu ndayam ji nag di soxna Marie Parsine Diop bi mu matee dem kër ku ñu wax sëriñ Bokar ko jébbaloon mook sëriñ Bokar Ndiaye nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee nag sëriñ Bàcc Salloli Ndiaye sëriñ Maxtaar Ndiaye soxna Mariam Ndiaye sëriñ Yankooba Ndiaye soxna Caane Ndiaye sëriñ Xaadim Ndiaye sëriñ Omar Ndiaye ak sëriñ Màggat Diop Ndiaye ibnu doomu ndayam ji di sëriñ Babacar Diop Diop ak njabootam nag mooy sëriñ Aynina Diop soxna Indu Diop ak sëriñ Moustapha Diop njaboot ji nag ñooy njabootu ñi soxna Sukayna Mbàkke nag bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu nag waajur wu góor laataa ñuy xuus nag ci doomu moom Mamadou Lamine Baara Mbàkke bi ñu wax leen nag waajur yii ko meññi nag ñoom ñooy ñan waajuram wu jigéen wi nag di soxna Indu Mbàkke doomi soxna Ami Jéey la ak sëriñ Cheikh Coro Mbàkke soxna Ami Jéey nag ñetti bant nag la am ak sëriñ Cheikh Coro Mbàkke muy soxna Xadi Mbàkke sëriñ Omar Mbàkke ak soxna Indu mii nag ñoom ñett ñi nag seen góor nag mooy sëriñ Mbàkke sëriñ Cheikh Coro Mbàkke doomu Mamor Anta Sali Mbàkke la Mamor Anta Sali Mbàkke itam nag moom meññu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiima ñii sëtub nag Maam Balla Aysa Mbàkke ba tey nag soxna Sukayna Mbàkke mi waajuram wu jigéen wii nag di soxna Indu Mbàkke ku Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke nag fonkoon la ku Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke itam nag bàyyi woon xel la ndar géej itam nag la ko féetale woon Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke itam nag tudde na ko doom tudde na nag waajuram itam nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke doom tudde ba mbàkke soxna indu mbàkke moom nag moo meññ itam nag soxna sukayna mbàkke mii ak sii siidi muxtaar mbàkke ak sëriñ amar faal mbàkke seen waajur wu góor nag mooy cheikh mouhamadul amin baara mbàkke doomu ku baax ki sëriñ tuuba cheikhul xadim la moom la cheikhul xadim dëloon itam nag mbàkke kajoor moom moom itam nag suuf si nekk tuuba ñu koy wax nag tuuba guy mbind ci atum 1936 nag la fi bàyyi ko soxna sukayna mbàkke mii itam nag bokk itam nag ci ak njabootam ñaari jëmm yi nag ñoo ko séq muy mamor anta sali nag ci ñaari wet xuus nag ci ay mbiram ñu wax leen ñaari càmmiñam yii nag mu bokkal waajuru góor nag ak waajuru jigéen nag ñoom ñooy ñaan muy ku ñuy wax nag sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke moom ñu ci bari nag sëriñ siidi Ndar nag lañ ko gën a Ndar googu itam nag la nekkoon magam itam nag sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke nag moo ko fa jëlee di ko wax ne daal damaa bëgg nag nga gën a jege si nag njaboot gi mu ñëw nag Touba guy mbind Touba guy mbind googu sax nag la génnee àdduna ñu denc ko nag ci Touba moo neewoon itam nag taawub soxna Indu Mbacke ak Cheikh Mamadou Amine Baara Mbacke moom sëriñ Sidi Mbacke Ndar moom moom nag lopp itam nag ci ak njabootam ñi ngi ndar nag di wéyal nag ndonali ñaareelu doomu soxna indu mbàkke nag ak cheikh mamadul amin baara mbàkke di sëriñ amar faal luga nag la feeñe jamono ginnaaw nag bu mu jàngee ba ñëw itam ci roon ay magam itam nag la nekkoon sëriñ moodu baara sëriñ abdul aziz baara mu dëkkoon nag luga itam nag ak mbàkke kajoor mu jigi itam nag la féete tuuba di jaabante itam nag ci daara yim sancoon ba ni mu génne àdduna nag ci atum 1993 ñaari jëmm yooyu nag la séqal soxna indu Mbàkke mu feeñu jamono nag ci ndar ci atum 1932 waajuram wu jigéen nag Cheikh Mamadou Amine Baara Mbàkke nag bàyyi woon ko ndar mu wéyoon des nag ndar nag ci loxoy waajuram ba ni fi Cheikh Mamadou Amine Baara Mbàkke nag bàyyi ko nag ci atum 1936 ginnaaw bu fi Cheikh Mamadou Amine Baara Mbàkke nag bàyyi ko ci atum 1936 magu waajuram ba nag lañ ko jébbaloon nag di soxna Xadijatu Mbàkke soxna Xadijatu Mbàkke moomu nag moo ko yar ba mat a dem kër moom soxna Sukayna Mbàkke waajuram nag soxna Indu Mbàkke ginnaaw Cheikh Mamadou Amine Baara Mbàkke nag yóbbuwaatoon nañ ko nag mu dem kër ñu jébbal ko nag ku ñuy wax sëriñ ahmadou sàll nag lam tooro ginnaaw sëriñ ahmadou sàll nag lam tooro soxna indu mbàkke lañ ko jébbal nag ku ñuy wax sëriñ màggat jóob nag ibnu doom ji nag di soxna sukkayna mbàkke wéy des nag ci dëkk boobu nag di ndar ci loxoy nag magu waajuram nag soxna xadijatu mbàkke bi mu matee jàng nag soxna xadijatu mbàkke itam nag jàngal na ko alxuraanul karim nag ak nasaraan mu nekkin nag ko amoon nag ay diplôme nekkoon na secrétaire nag ci administration nag bu sénégal doon na liggéey itam nag ci building administratif nekkoon fa nag di soxna Indu Mbàkke moo ko ko bàyyiloo di ko xamal ne daal sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag ci nga bokk sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim itam nag ëpp na nag lii ngay liggéeye damaa bëggoon nag nga bakoo ñëw nag toog ndar gii nag doyloo sa maam loola itam nag tegu ci woon baat ndigalul waajuram woowu itam nag sàmmoon na ko ñibbisiwaat nag ndar gée ca doyloo nag li ko maamam nag sédd bi mu matee dem kër nag lañ ko boolee ku ñu wax sëriñ Birahim Géey Gay nekkoon nag ndar doon liggéey nag ci wàllu yoon mook sëriñ Birahim Géey Gay nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdou Salaam Abdoulaye Gaye sëriñ Cheikh Gaye sëriñ Babacar Gaye soxna Aminata Gaye soxna Leena Gaye ak soxna Maam Jaara Gaye njaboot yi nag la soxna Sukayna Mbàkke moom Cheikh Mamadul Amin Baara Mbàkke am ak sëriñ Birahim Gaye Gaye doon liggéey nag ci wàllu yoon ngir xamale leen nag njaboot googu mu am ak nag sëriñ Birahim Gaye Gaye nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna Aminata Gaye bi mu matee dem kër sëriñ Ibrahima Diop nag bu parcelle unité 22 nag ko jébbal mook sëriñ Diop ak soxna Sukayna Diop dikkiñ faye nag waajuram wu na doom ji nag di soxna Leena Gaye bi mu matee dem kër sëriñ Fodé Diallo nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Fodé Diallo nag benn bant lañ am muy kuñ doon wooye nag sëriñ Abdou Salaam Diallo ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Fodé jàlloo moom soxna Leena gay mii lañ ko jébbal nag sëriñ Xaadim Mbàkke Moodu Baara moom sëriñ Moodu Baara moom Cheikh Mamadul Amin Baara Mbàkke mook sëriñ Xaadim Moodu Baara itam nag benn bant lañ muy soxna Indu Mbàkke ginnaaw bu soxna Leena nag jógee nag ci sëriñ Xaadim Mbàkke Moodu Cheikh Serigne Babacar Diop mu am fa nag benn bant muy soxna Aminata Diop soxna Leena Gaye nag bi mu jógee nag ci Serigne Babacar Diop lañ ko jébbal nag Serigne Balla Ndiaye mook Serigne Balla Ndiaye nag benn bant lañ am muy Cheikh Saad bu Ndiaye doom ji nag di soxna Maam Jaara Gaye bi mu matee dem kër lañ ko jébbal nag Serigne El Hadji Ndiaye nag rawaan mook Serigne El Hadji Ndiaye rawaan nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Penda Ndiaye Serigne Mohamed Ndiaye Khalilu soxna Maam Mariam Ndiaye ak soxna Sukayna Ndiaye di kiñ nag waa wu jigéen nag soxna Sukayna Mbàkke doom ji nag di Serigne Abdou Salam taxawal nag kër bi mu génnee àdduna nag ci dëkk boobu nag di ndar cheikh murtada mbàkke ibnu sëriñ tuuba xaadim rasool moo ñëw nag jullee ko nag ñu denc ko nag foofu doom ji nag di sëriñ abdoulaye gay moom itam nag ba fi itam nag ak njaboota doom ji nag di sëriñ cheikh gay moo toog sax nag ab toogaayam ak njabootam nag mooy sëriñ abdou salaam gay soxna nafisatu gay ak soxna isa gay doom ji nag di sëriñ pa babacar gay ak njabootam nag mooy soxna aminata imran gay ak soxna sukkayna gay di kim faye nag waajuróom nag wu jigéen njaboot ji nag ñooy njabootuk soxna sukkayna mbàkke njaboot yi ñu am itam nag ñooy sëti soxna si soxna Sukayna Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Amin Baara Mbàkke wéy des ak nag ki ko suñ borom booleel nag ci wàllu kër muy sëriñ Birahim Guèye Gaye mii mu nekk ak moom nag ci dëkk boobu nag di Ndar sëriñ Birahim Guèye Gaye mii nag affecté woon nañ ko itam nag ci dëkk bii nag di Ziguinchor bi mu nekkee Ziguinchor itam yóbbaale woon na fa nag doomu Cheikh Mamadul Amin Baara Mbàkke bi ñu bokk fa nekk ginnaaw Ziguinchor itam nag lañ ko indiwaat Ndar mu wéy nekk ak Ndar itam ak doomu Cheikh Mamadul Baara Mbàkke bi Ndar googu itam nag la soxna Sukayna Mbàkke nag wéy des ba ni mu génnee àdduna laataa muy génn àdduna nag ci feebar nag bu ko tëraloon jële woon nañ ko fa nag indi ko ndakaaru ci kër doomam nag soxna Aminata Gaye ci parcelle unité 22 parcelle unité 22 boobu nag foofu itam nag la génnee àdduna ci atum mu wéy des ndar nag di sàmm nag ndonal waajuram di sàmm nag ndigal li ko waajuram wu jigéen nag joxoon di soxna Indu Mbàkke képp koo xam ni daal njabootu ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim nga ñëwoon nga ndar géej itam daa nga fa fekk nag doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara ko daa def muy soxna Sukayna Mbàkke kilifa yu takkoo takkoo takku nag ci yoonu murit itam jaar nañ nag foofu nag ci moom amoon ak kóllëre itam nag ak moom bi mu génnee àdduna nag ci atum 2015 mbooleem kilifa yim amalanteel woon nag ak kóllëre ñëw nañu tim nag jaale si xam ne daal doomu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke bi fi ñuy nekk ndar daana leen taxaw mu wii des nag ci dëkk boobu nag di ndar ci kër gi nga xam ne daal fa la ko suñ borom dël nag fa kër soxna indu mbàkke nag wàcc waaye nag la woon soxna indu mbàkke nag képp ku fa masaa wàcc mu boole laag nag doomam nag soxna sukayna mbàkke ngir nag ngeen xamante xamante googu nag nga xamanteek soxna sukayna mbàkke nag ci ndar kër soxna indu mbàkke nag di waajuram wu jigéen ak kër soxna sukayna mbàkke itam nag soreewul woon ñu bari itam nag fa lañ daa dem daa fa loo nag wala itam nag daa fa loo boole nag gu leen soxna indu mbàkke nag boole ñu daa fa dem nag di fa toog ñu bare bare bare nag ci relation boobu nag lañ xamante doomu cheikh mohamadul amin baara mbàkke bii ci kóllëre ci nag ay turandoo sëriñ mbàkke soxna loo di doomu sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma tudde na ko doom sëriñ amar faal mbàkke di doom sëriñ amsata sàll di doomu ndayam tudde na ko doom sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ omar moom sëriñ balla coro itam nag tudde na ko doom sëriñ ibrahima diop di goroom tudde na ko doom sëriñ elaaji njaay rawaan di goroom itam tudde na ko doom sëriñ pape babacar gay di doomam tudde na ko doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu ko tudde doom noonu itam ni la ko ay magam fonke woon moo xam sëriñ abdul aziz mbàkke baara ku itam ndar itam nag dana fa dem noonu tim ni la meloon nag sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke mi nekkoon xalifa cheikh mamadou lamine baara mbàkke ci ak xilaafaam sax nag la génne àdduna nag ci atum 2015 mu nekki nag ku jaxasoo woon nag sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma sëriñ cheikh gaynde fatma mbàkke nag ku fonkoon nag soxna su kay na mbàkke la ku boole woon na ko ñu bare bare bare nag ci njabootam ak nag ay taalibeem rawatina nag sëriñ cheikh fall baayu góor wax nañ ne daal sëriñ cheikh fall baayu góor nag mus sa ñëw ndar te seet su kay na mbàkke wala itam nag mu daal itam nag ci moom sëriñ cheikh itam nag moo leen boole woon noonu itam nag ni la meloon ak sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke ku jaxasoo woon ak sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke la daana seet si itam nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke ci ak kóllëre nag ak jaxasoo itam nag guñ amoon bu sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke nag masaa dem ndar ci moom itam nag lay nekk noonu itam nag ni la meloon ak Cheikh Mourtada Mbacke mu sëriñ Touba Khadim Rasoul ba doom ji sax di sëriñ Abdou Salaam Gaye nag bi mu génnee àdduna Cheikh Mourtada Mbacke mu sëriñ Touba Khadim Rasoul itam nag moo ko jullee noonu itam nag ni la meloon nag sëriñ Mbacke soxna loo ba sëriñ Mbacke soxna loo itam nag tudde na ko doom mu nekk nag ku jaxasoog nag sëriñ cheikh abi mbàkke moom soxna abi mbàkke sëriñ cheikh abi mbàkke sax nag moo ko jullee nag bi mu génnee àdduna sëriñ cheikh abi mbàkke itam nag xamal na ma ne ku jaxasoo woon ak doomu cheikh mamadul amin baara mbàkke bi soxna indu mbàkke nag miy waajuram wu jigéen nag moo leen boolee soriwul nag 1982 jàpp 1983 gànnaar nag la jóge woon bi mu ñëwee nag guddee mu dal nag kër bàjjanam nag soxna indu mbàkke ci la ko bàjjanam nag soxna indu mbàkke nag doon wax ne na mbàkke sama doom sëriñ cheikh abi nag di ko wax ne miinu ma ko soxna si nag woolu nag soxna Sukayna Mbàkke mu ñëw nag mu di ko xamal ne Cheikh Abi Mbàkke mi daal sama doom la moom daal laa am nag ci doom ju góor nag ma ko jàppal nag fonkal ma ko ca booba nag la ñu xamante bisub keroog itam nag sëriñ Cheikh Abi mi ngi wax ne kër soxna Sukayna Mbàkke nag la fanaan booba nag ba ni mu génnee àdduna saa su ne itam nag soxna Sukayna Mbàkke mi ngi doon sàmm nag kóllëre googu saa bu masaa ñëw Tuubaa nag ci màggal gi bu ñëwee nag ba dal kër sëriñ Amar Faal ñu màggalee nag ba ca gannaaw suba ga dana ñëw na këram am fa nag lu mat ñaar fukki fan nag doog a delluwaat nag ndar koo xam ne daal soxna sukkay na itam nag xam na ko boole woon na kook sëriñ Cheikh Abi Mbàkke di ko wax ne daal soxna si nag mooma xamal ne doomam la njabootuk soxna sukkay na Mbàkke gépp itam nag sàmm nañ kóllëre googu nag seen waajur nag amoon nag sëriñ Cheikh Abi Mbàkke ba bi soxna sukkay na génnee àdduna itam sëriñ Cheikh bokk na nag ci ñiñ ko njëkk a yëgal sëriñ Cheikh Abi itam nag di seede itam nag ci soxna si di wax ne daal ku bëggoon sëriñ Tuubaa la ku yaatu itam nag la woon ku doyloo woon itam nag maamam la woon ku jàppoon nag boppam la te maandu lu ko ñoroon la nekk googu mu nekkoon ndar itam nag téewul lépp loo xam ne daal mbokk la daana sàmm saa boo masaa dem këram itam nag da xam ne ku noppee ngi nii ku nëbboo ngi nii da nga xam ne moom nag da nga xam ne kii nag am na cër nag ci cheikhul xaddiim moo xam ci julli moo xam ci wird ak jaamu nag suñu boroom umpule daal nag la sëriñ cheikh abi mbàkke wax ne ñu bare bare bari nag moom lañu def nag doomu seex moom cheikh dul amin baara mbàkke bii moom mi jaxasoo woon ak moom xam na ne ko la bari nag ci njaboot gi itam nag fekk nañ ko fa bi mu génnee àdduna sëriñ cheikh mbàkke moom sëriñ tubaa cheikh abdou xaadir mbàkke ñëw na nag jaale si kóllëre nag gu sëriñ abdou xaadir mbàkke séqoo nag doomu cheikh mamadul amin baara mbàkke bi sëriñ moodu maamun buso na itam nag njaboot gi bi mu nekkee ndar daana jànge foofu amoon na nag ak kóllëre ak soxna sukkayna mbàkke ak ñeneen ak ñeneen nag ci ay kilifa yu jaale si nag doomu soxna indu mbàkke bi mu wéy des ndar nag ba ni mu génnee àdduna laataa muy génn àdduna nag jëlee nañ ko ndar feebar nag indi ko nag ndakaaru nag ci feebar nag bu ko tëraloon ci kër doomam ji nag di soxna Aminta Gaye ci Parcelles Assainies unité foofu sax nag la génnee àdduna mi ngi génn àdduna nag ci kër doomam nag soxna Aminta Gaye nag ci Parcelles unité 22 ci bisub ajjuma juróomi fan nag ci weeru rajab ci atum 1436 nag ci gàddaay gi ajjuma juróomi fan nag ci weeru rajab ci atum 1436 nag ci gàddaay gi dëppoo gitim nag muy vendredi 24 avril ci atum 2015 vendredi 24 avril nag 2015 ñu jëlee ko nag ndakaaru ci kër doomam nag soxna Aminta Gaye indi ko nag ndar géej denc ko fa bi mu génnee àdduna itam nag yëgal nañ ko xalifa waajuram di sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkke yëgalaale ko itam nag mbooleem nag ñu mu séqal ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiima yëgal ko itam nag ñi mbokkal maam muy waa kër nag sëriñ seex Coro Mbàkke ak waa kër itam nag sëriñ Balla Coro Mbàkke sëriñ Cheikh Abi Mbàkke moom soxna Abi moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom sëriñ Abdourahman Mbar moom sëriñ Balla Coro Mbàkke moo jógee Touba itam nag dem ndar géej jullee nag doomu Cheikh Mouhamadoul Lamine Baara Mbàkke bii ñu denc ko nag ci wetu soxna Indu Mbàkke nag muy waajuram wu jigéen ak maamam nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ci teewaayu nag mboole murit nag yi nekk Ndar ak lenn itam nag ci kilifay Mbàkke Mbàkke yi nag ya ba noppi nag sëriñ Cheikh Abi moom sëriñ Abdourahmane Mbàkke Mbar def na itam nag seede bu yaatu nag bi mu wax ne nag bi mu ko xameek léegi ëpp na nag fanweeri at nag di dem ci bëgg sëriñ Tuubaa nag ak nawloo ko doon ko liggéeyal itam nag ci la ko xam kilifa yu bare bare bari nag soxna Sukayna Mbàkke mii nag jaxasoo na ak ñoom rawatina nag moom mii am nañ ci moom nag yaakaar nag ci fee mu jëm géey na nag fii bu dul loolu itam nag la maamam sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim nag waxoon itam nag ci waajuram Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke yàkku la yaakaar ëllëg nag du ngeen sonn loola itam rek nag doy na ñu denc ko nag ci wetu waajuram wu jigéen nag soxna Indu Mbàkke ak maamam nag sëriñ Cheikh Coro Mbàkke nag ci ndar bisub keroog itam mbooloo mu takkoo takku nag ci julliti ndar na gunge ko ab xalifaam nag mooy sëriñ Cheikh Gaye moo fi toog nag ci atum 2015 nag ba nëgëni bu mooy soxna Aminata Gaye ñu leen di ñaanal nag suñ borom guddal seenu fan nag te wéral seeni cër te yàggal leen nag si seen toogaayu waajur boobu ak mbooleem nag ñuñ séqal nag soxna Sukayna Mbàkke soxna Sukayna Mbàkke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci luñ tudde ak màggal bis bii daal mu génnoon àdduna juróomi fan nag ci weeru rajab ñi bu del si waatee ñu wàcceel ko ay kaamil nag ñaanal ko ci ñuy ñaan ca doomu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ba sa tub seexul xaddim ba ak sëriñ cheikh Coro Mbàkke ba yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem li di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na suñ borom saafara ci darajay alxuraanul karim amin